أعوذ بالله بسم الله إن ولي الله وما توفيقي إلا بالله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آمين مكي جليدي مكي طالبي مكي دار الجسين مكم طالبي سلم فعل جب طوبة دار من مولين دي نيوات بباح دي لين زيارة وات دي لين بالوات حق تيبال نيب حق tey ñaan buur bi tabaraka wa taala moom mi am njëggal yàlla na nu boole ñun ñëpp ci barkeb xaadim rasul allahumma amin kon fas yéene ñëwaat ak yéen ci seen garab ak garabuk tuuba téereb sëriñ alhaaji mbàkke boobu mu def di ci nettali waxtaani sëriñ bi te ñun di leen ko jéem a nettali fas yéene liggéeyal sëriñ bi mu ne sëriñ tuuba xaadalahu llahu maxtaara la mas nay waxtaan ba mu yàgg mu am kum xaaj ji nekk kum am ku mu xaaj ci fere yi ci ndongo yi ni ko diw góorgóorlu leen bu baax daan ne bis ba suñu alxaaji te mooy yowmal xiyaam balaa kenn jàll mel nii nee na booba kooka daa soloon lu weex tàll waaw ah, sëriñ ko kon bis ba yomal xiyaam balaa kenn jàll daa set wecc ba weex tàll ba mel ni yére bii sëriñ alxaaji wax ne sëriñ Tuubaa xaadalahu llahu maxtaara la dañuy xamal ne àjjana barabu bi yàlla subhaanahu wa taala bu mu sellal moo tax ku sell rekk moo fay dugg li lay sellal nag mën naa nekk say jaamu yàlla subhaanahu wa taala ak sa tuub wala ay nattu ci aduna wala ca barzaq wala ca sawara wala a'yazu billah bu defé kagn don nattu ca sawara lay wax mu door a génnaat nag dugg àjjana <clears throat> waaye àjjana moom kenn tabbi bala fa kenn tabbi faw mu set wetch kon yalla nañu yalla setal ci ak mbaxam ci barkeb sëriñ Tuubaa xaadalahu llahu amin musal ñu yitam ci lepp lo xamne أن يتقاد آمين سرين توبا خاد له الله مختار له مصنع فبلو سرين شعيب رضي الله تعالى عنه أي بني بني سوكا أم كجوك ناركو فبلة سرين بنكو ديدت بايكو يعني كو كن دا منتجال نيوتيمان تلقي لما ما تعمقوا يلقي لو سيونه sëñ alxaaji wax ne kon loolu dañuy filil baydu wi ci nahju qadaayil xaaj baydu ba daa waxoon ne waalam xamal ne bi ann al majda laa yunaal maanaam tedd nga daal deefu ko am illaa bi qadril kaddi luul ab coona balaa kenn tedd daa amuk coona sonn bay bëgg a dee sëriñ bi waxoon ne nabbahtukum ala kaddin bada li khabla an arar dan muabada abada ma ngi leni wax ne maa ngi leni yegal ne sonn de wetti na ñak wettee di aw ñak bala ma am lii ma am man sëriñ bi kon ku bëgg tedd nga rek fokk nga son <clears throat> dani wakhila inna naf'a man taallama niito bi ash-shuyukh al ulama wax nañ ne ki jang mom bala am njëriñ rek da màggal ka koy janggal, jox ko cëram te ko place magal ko ci kam ni magale ka koy jàngal rek noonu lay jëriñoo kon yàlla na yàlla dollee dimbele ci barke serigne touba khadalahu allah maxtaala la amin serigne touba khadalahu allah maxtaala la nee sama bir sama mbiri bop sama mbiri bop ak fama jëm ak seen mbiri bop yéen taalibe ak fama ma leen jëmee lépp ni sama rëdd di baaraam yi leere noonu la ma leere alhamdulilah sëriñ alhaaji wax ne sëriñ bi moo bind wax ne kashaftali kashfan yurini man baham wa suntani anil aadi wa tuham loolu mooy tekki li mu wax lool rek suñ borom wuññil na ko mbir yëpp ba mu xam lépp ni mi demee fam jëm ak fam ñu jëm yeeg mbiri boppam ak suñ mbiri bopp ak lépp rek تجاتني علمتني الغيبة حتى صرت منتبها أنت العليم الذي علمت يا الله خمل لما خيب يا وسام برام بمو مجنك يا وجرنك خمل يبني مدمع كن يلا يلا دولي ديمبلي تي توب سيرين دي اك تانام تي نيون مانام سيرين دي ديمبلي ني تي اك تانام وقتو نيك رك يالنا ني نيك تي لي ني سيرين بي تانال اللهم امين yàlla na ñu dimbalee ak sopp moom yàlla ak yaakaar ko moom sëriñ bi yàlla nañu yàlla dimbalee sopp sëriñ bi yaakaar sëriñ bi allahumma amin ne mbooloo mi mos nañoo bari ci kërug daarul mannaan ga ñu ñëw di leen yëgle ci sëriñ tubaa xaadalahullah maxtaar la di ko wax ni mbooloo mi de bari nañ fi lool mu wax ne nee leen ku ci bëgg ab xaalis na dem ca buur ya ñoo am xaalis ku ci bëgg àjjana na dem jaamu ji yàlla subhaanahu wa ku ci bëggul lu dul yàlla fu ne koo xam ne nii yàlla rek moo ko tax a jëkk na ñëw ñu dem waaye ku bëgg xaalis na dem ca buur ya ku bëgg àjjanaat na dem jaamu ji yàlla waaye ku bëgg lu dul jëmmi yàlla ja nag kon na ñëw ñu dem <coughs> siiw na sëriñ bi dañuy eh, maanaam sëriñ bi du nax kenn déedéet waaye itam kenn mënu ko nax dani mbooleem mbooleem murid yi li ñuy bari bari ku ci ne xam na la ko tax a jóg xam na itam itam na mu koy jariñe ak na muy jariñoo ci moom ku ñëw ci moom wax ko la nga bëgg dana la tegtal yoon wa ngay jaar ba am ko boo ko defee faw nga am la nga bëgg boo ko deful itam du tee muy ànd ak yow ci sag bëgg li feeg wuute woog bëggug yàlla subhaanahu wa taala wallahu aalam alfulkul mashhun <clears throat> alfulkul mashhun ngeen baal ma ab téere la ci téere yi sëriñ bi sëriñ Tuubaa xaadalahu llahu la da koo fonkoon lool mas naa wax abdul qadir yow mi dàq ñépp ab néeg tëggalal fulkul masxuun mi ab néeg dañ ne cheikh cheikh faati tàg ko yow mi dàq ñépp ab lal wutal ko ab lal majji mu ne aw tur la wutal ko gaal yow mi dàq ñépp gaal saafoor wutal ko ak kër yow mi dàq ñépp kër madugéey jafiira wutal ko jafira yow mi dàq ñëpp jafira te mooy fi ñu dugal téere ba lépp noppee sëriñ bi teg alfulkul mashxuun ca kaw lal ba daal toog fi suuf sëriñ alxaaj wax ne sëriñ bi jëf jëfinam wii li mu ñuy leeral mooy li mu wax ci mbindam yi ne ay jëmm lañu maanaam téere yi ay jëmm lañu بوغي سي الف لكو مشحون سيرن توبا خادل الله مختار له فونك فون موي نينا خاري يونتي بي صلى الله تعالى عليه واله وصحبه وسلم دا ام بو سي ديسون بو خامني موكو موتلي موم فولك مشحون ملنا ني لي تي كيفر نات سي كاو سوف سي موي الف لكو مشحون kon war na bépp murid mu am ko te fonk ko te war mal ko su ko defee wàllu li ma ciy wax mooy la ci sëriñ saalifu daan wax ak ñun radiallahu taala anhu loolu mooy ku ko man deel jàng xasida yi mu def ngir sant yàlla subhaanahu wa ginnaaw xare buuba sëriñ tubaa xaadalahulaa maxtaara nee na alxuruufu zuruufu xaraf wu nekk la nga ca namm ba nga koy bind moo cay nekk ak nu mu mën a mel ci lu mu mën a jëm waxaat ni innamal amalu binniyaati jëf yëpp mi ngi ci mi ngi ci yéene yi sëriñ bi nag bi muy bind xasida yooyu ci géej ga ak nammeelam mooy jeexal kéefër xeex ak kéefër ba mu daanu ak yéefar yi loolu itam bu mu ko nammee di ko def sax ca dàkk mujj na sunu borom subhanahu wa taala fekk ko ca lool ba nangul ko kéefër ak mboolem yéefar yi ba nafal ko kéefër ak mboolem yéefar yi ba may ko bu bàyyiwul mbindi yéefar yépp faatu ci kanamam mu daal di leen di jéggal wax ne law annani lam atrukul kitaaba mujahidan biha dawil itaaba la maata bil wabaa'i kullu kaafiri in lam yatuubu lil ilaahi xaafiri laakin afawtu an jamii annaasi li wajhi baaqin muhlikin xannaasi su ko defee ndegam sëriñ bi moo doonoon loolu moo doonoon pas-pasam ba mu koy bind yaakaar naa kuy jàng yooyu du ñàkk yooyu di xewaat ndax li gën mooy jàng xasida yi nga xam ne sëriñ bi da ciy sant boroomam di ko ci santale ndax moo ne fali hëb shukuran daamuk seen maal bur i aqulu wa xasdi shukra shukru fi duuli azmuna habli dawaama shukri lil jinaani بالروح والجسد والجنان والله أعلم إن أريد إلا إصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته